loolu moo tax tey huile mantule am mhm. mhm. ñaar yëpp pour massage la macha allah pour waaj a efficace waaj bu mu ci bëgg mantule mhm. bi defe naa ne day saf sàpp ci yaram waaw man damaa bëgg lu saf lu am waaye lépp nay neex te nay naturel macha allah waaw mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. nga jël sa borom kër. Mm-hmm. ni ko tey amba la dem ci suuf. amba waaw. wàcc nga dégg eh, jéeg ju naan waa kaw ñu gi ni waa am na waaye tey waa suuf ñooy nuyoo. waaw bu waa suuf nuyoo ba pare nag da ngay wàcc ci suuf. dëgg la daal di fekk sa borom kër ci suuf daal di jargambar jërëjëf rasulullah du jar daal di feranku laay say tànk jàkkaarloog sa borom kër daal di jël sa ñaari huile fu ne nga samp ko fa sa borom kër tëdd defeen waaye bu paree day jaaxaan de. Eh. ndax ndax massage bi vice versa la. te fépp ngay massé. te fépp ngay massé. boo koy maasee nag na fekk tartal la. Hmm. nga daal di lal sa parfum oyof. nga xamante ni mais ma maasee massage bi est-ce que dina egg est-ce que dina egg. dama dem massage bi egg Ousseyn Ousseyn waxal ak téléspectateur yi. waxal ak téléspectateur yi. xam nga leen nee nañu day day waar woote su dëgg moom it. man de war na yàlla coach baa ngi nii. maa ngi wax li dama. wuti ñu leneen. Ah. bilaay boo doon artiste dama day affaire ah jaba dama koy jar gànnaaw xale yi jàng si biir waaye lépp dama koy jar gànnaaw waaw waaw mais daba daba bii moo gën a waaye damaa bëgg xale bu jigéen bu nga xamante ni ni da nga cee massage da ngay sa borom kër waaw bëgg jigéen juy pare pare maanaam mën nga koo massage waaw bu koo daat la yenu ba ci kaw ngeen supp jalañ yéen ñaar waaye nga fekk nga pare nga fekk nga pare waaw bu bañ la bett fenn neex parce que ñun bëgg jigéen saa su boo togg sax pare. dëgg la jëkkër mën naa wàcc ci bureau ba ñëw gàddu cartable ñëw ci waan bi gis ni ngay jaagaar jaagaaree mu bëgg a seq yow foofu. à tout moment ngeen foo toll. à tout moment à tout moment. dëgg la foo gën à tout parce que dañ naan ay produits yoo xamante ni yokk ak wàññi mais au delà de yokk ak wàññi bi am nga produit yoo xamante ni ku góor ki bu dee dafa gaaw pare. Mm-hmm. est ce que yow da nga yor ay produits yoo xam ne ko day gaaw kii. yu naturel waaw mm. <laughs> am nañ sànq ba tey du ma ko nag mu neex. waaye nag ak góoram ah nag ko visage am mu ngi fi. Mhm. yooyu yëpp day ñëw. waaye nag tey dañoo toll ci huile de massage. Mhm. toll ci astuce naturelle. Mhm. loolu moo tax ma ñëw ak yéen ci huile. sànq damaa nekkoon ci phase su. amba tey. ah. ñëwal naa la. xale bu góor bi boo koy massé. na fekk nga pare. ndax mën nga koo maase mu dem ba yëg boppam bu ko defee dalay jargandal rek ngeen daal def lu leen sax mm-hmm. mm-hmm. waaye soo ko maasee ba pare mm-hmm. moom su paree dalay maase dalay am ah, ah, gis am na retour <laughs> eh, moom moom am na am na noo koy maasee pare moom mun laa mun laa maase du la maase ah, da ngay xale yàkkamti bu la neexee moom mu njëkk laa maase est loolu gën wóor mu njëkk maase doon nag laa la wax parce que buñ la buñ ñun góor. non du du buñ njëkkee maasam ñoom duñ loolu moom leer na waaw. nit day am maîtrise comme ni ma koy waxee. xam ne danga ko naan salaamaaleykum mu ne salaam fekk na. waaw <laughs> dëgg bu ko war caa defal lu baax jamono. looy sa gannaaw la.